inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mbokku internet yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen yëg ne jot nañ fi benn xibaar bu tiis boo xam ne famille làmb bu ñàkkati nañ ku mag euh, grand champion euh, ñu koy wax per dubalees ci ginnaaw feebar bu yàgg bu ko tëraloon boo xam ne ñi nekk ci famille làmb ñu bari yëg nañ ko léegi lan nu annoncé nañu moomu moo wuy ji boroomam ginnaaw rumeur yi nga xamoon ne rek démb ñu ngi koy waxal Balla gay naan dafa feebar te mu génn démentir na amul gis nga li yàlla di def ñu xëy tey rek suñ boroom mi nga xam ne moom mooy boroom kun fa yakkoon jël ki nga xam ne mooy père Double Less di papa ci Balla Gaye di papa ci Sa Thiès grand champion euh, di Sénégal teewal Sénégal fu nekk gagné médaille yu nekk euh, fenn fu nekk ci àddina ci Afrique mu dem fa teewal fa drapo Sénégal ginnaaw feebar bu yàgg bu ko tëraloon mbokk yi Double Less moomu lan ñu annoncé léegi nanu moo génn àddina famille làmb ñàkkati nag sampion bu mag ndax boo xoolee weer wala ñaari weer ci ginnaaw rek kii di Père Mbaye Guèye wuy ji na boroomam ngeen gis ne sampion yi nga xam ne amoon nañ leen ñuy suñuy sampion di suñuy baay euh, gis ngeen leen ñu ngi commencé di wuy ji seen borom ci ginnaaw feebar yu yàgg yu leen tëral ñu leen di ñaanal nag euh, di wax ne yàlla na leen fi ñu gënal. fi ñu jëm gënal leen fii ñu jóge mbokk yi yàlla na leen suñu borom yërëm teeru leen boole leen ak yonent bi ci mbaaxam ci barkib sëñ Tuubaa ñi ngi ko koy ñaanal du balees yàlla na suuf fooyof ci kawam xibaar boobu la nu jot mbokki internet yi léegi ne kii nga xam ne mooy dubalees moo fi bàyyeekoo di papa ci Balla yi